ci turu baay bi ak doom ja xel mu sell mi na barki Yeesu Krista sunu boroom ak coofeelu yàlla xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñépp mbokk yi na leen yiw ak jàmm lew ci turu yàlla sunu baay boroomu Yeesu Krista kaddu yi ñu tibe ca bataaxel ba Pool mu sell mi apotar njëkk bi nu waa Korent ñoo ngi nuy fàttali li di kump kolore gi dox sunu diggante ak moom yàlla sunu baay mu doon diggaale coofeel gu jéggi dayo coofeel bu dul deñ mukk bi ñu ràññeeti xàmmeeti joomam Yesu Krista Yesu waa Nazaret mi di sunu musalkat Yesu mile moom moo di baat bi def boppam nit niki doomi yàlla jot nañu ci ndoonu baay bi jaarale ko doom ji di benn mu di ab ndoonoo gi nu yàlla ci boppam baaxe ñun ñi di doomam te bi lee ndoonoo moonu may ñu bokk benn cër ak doom ji di benn krista bi di mbottu mi yàlla moom mi mu yonni te di dindi bàkkaari àdduna si moo tax sunu bëggoon tënk ci ay kàddu yu leer li nu gëna ràññee ci kump kolore coofeel gile dox sunu diggante ak moom yàlla ni ki sunu baay mën nañu ko yemali ci yu mbaale gi nu agali ni ki kerceen jaarale ko nderetu burtu mile ñu rendi ni njeebale bu set ngir sunu mbaale bàkkaar yiwu mbaale gi ñu àggali ak yiwu jàmm ji nu yàlla jottali moo ngi bàyyi ko ci kumpuwolori gu ees gi mu fas ak ñun ci barke doomam Yesu Krista doom jile mu sopp sopp kon dale ko ba Yesu Krista jébale boppam ca kaw croix ca la dal di defaraat sunu diggante ak yàlla ndege li bàkkaar gi taxoon ba ñu sore yàlla ñu texali ko ak moom naka noona mbokk yi ñun ñi cër ci kumpu gile sunu wareef moo di ñu doon bër bu set i sedd krista yu takku te farlu ci ngëm gi ci seen bataaxel ba ñu bind te ñu jagleel ko jamono koor gile sunuy samakat yi maanaam sunu monseigneur yi bokk ci kuréelu conférence épiscopale bu Sénégal bu Mauritanie Cap-Vert ak Guinée-Bissau ñoo ngi nuy woo ndax ñu doon i sedd yaakaar bu takku te di selal Krista bi sunu borom ci sunu dund ñun ñi ko ni ñu ko Pierre mu sell mi apôtre digtale ca bataaxel ba mu jëkk bind mu di ab oote bi nuy fàttali ne ñun ñëpp danoo war a ànd topp ci yoonu yaakaar gi ci kaw ngëm ak coofeel gi nu war a dunde wax dëgg kàddu yi sunuy monseigneur yi àddu ci jamono koor gi lée kàddu yu leer la moo tax suñu leen toppee dinañu gën a takku ci moom Krista te dinañu gën a bàyyi xel bu baax a baax ci li war a sunu taxawaay maanaam ñu fas yéene mëttali sas bi nu jële ci sacrement nu baptisé gi nu jot dans leur message de carême leur exhortation pour ce carême 2023 nos pères évêques nous invitent à renouveler notre espérance à Christ une espérance qui va au-delà des souffrances et des angoisses de ce monde. Saint Paul nous appelle tout simplement à espérer contre toute espérance. waaw doonte sax dund gi metti na kenn mënu ko wéet donte sax jafe na nit mën a ñam baneex wala mu am noflaay ci sunu jamono tey ndege iite ak solos àddina terewul sunuy monseigneur yi di ñu woo ndax ñu ànd ak dal te di dunde yaakaar kon nag seeni kàddu di i kàddu njiit war na ñoo dalal sunu xol yi te gën a yaatal sunu xol yi ngir loolu li nee nañu faw ñu dëkke di dunde yaakaar maanaam ñu gën a sax ci baatu yàlla ndegi baat bi li ci baat bii le la sunu yaakaaru kerceen fekk baax baat bii nag jàngu bi warul noppe di ko siwal waaye itam di ko dunde bés bu nekk nous sommes appelés comme membre de cette église famille de ju à être témoins de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui de par notre baptême telle est notre vocation propre être témoin du Christ qui est chemin vérité vie lile dinu fàttali sunu sasu batise ci kaw li nu doon cëru Yeesu Kirista niki xeetu yonent ca Galile ca tund wa Yeesu àddu woon na taalibeem yenn leen jox nañu ma bépp sañ-sañ ci asamaan ak ci suuf dem fexe ba niti xeeti yépp don sumay taalibe di leen baptisé ci turu baay bi ak doom ya xel mu sell mi te di leen jéemantal ñu topp sama yeble alliés de toutes les nations faites de disciples les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit cet appel jadis adressé par le ressuscité aux disciples en Galilée sur la montagne, Jésus nous l'adresse aujourd'hui comme Église, famille de Dieu, appelée à être témoin de l'Évangile. Le Seigneur lui-même nous l'adresse et nous invite alors à vivre d'abord de cette parole, à l'accueillir au cœur de notre vie pour pouvoir en être témoin et la transmettre au monde. Monseigneur yi ñoo ngi ñu ñaax ñu woo

bu mu mën a doon rawatina mbas mi bokk na ci dundu gu metti gi bokk na itam ci xare yi ci àdduna si sëpp rawatina ci sa jëkku dëkku Ukraine ngir ñu mën a fexe ba saafaral tiis ak mettitu àdduna yile faw ñu dellu samp bu baax a baax sunuy reni ngem ci baatu ya ndege ci baat bile lanu mën a jële sunu yaakaaru ngëm ñun ñi war a doon seede Christa puis nos évêques nous invitent à pouvoir supporter surmonter les souffrances de ce monde en mettant notre espoir et notre espérance en Christ qui a vaincu la mort ndege moom Christa moom moo ne maa ngi ak yéen ba ca suttite jamono je suis avec vous tous les jours nous dit le Christ jusqu'à la fin des temps ci diggu coono àdduna sile war a ñoo yogoor yu wala ñuy xaddi dañoo war a jàpp fu dëgër maanaam ñu jëfandu ci moom Christ sa moom mi dul noppee dinu tàllal loxoom rawatina sunu nekkee ci metit ci coono ci tiis walla ñu jaaxle waaw ba ñu gisee Yeesu di dox ca géej ga taalibeem ya dañoo daldi di tiit waaye Yeesu ne leen bu leen saalit man n'ayez pas peur c'est na kàddu yi lee gën a dëgëral sunu ngëm ci moom Krista doonte sax ni ki nit mën na am ñu dem ba di xaddi di yogorlu wala di dunde titangi lii lee warul tax ba ñu dal di ak Krista ndege moo di sunu musalkat moom mi di dund te di nguuru moos be moos amin